mënuñu la paase yëkkati la fi ngi nekk yóbbu la feneen lu dëgg loolu laa xam ci amul leen lu ma ci mën dool ci lu mel noonu en tout cas ñun ñi nga xam ñoom lañu sensé woon muy cent quarante deux cantines yi def nañ le plus muy cent quatre vingt dix cantines li nga fekk ñu koy ñu koy def le point léegi ñu ne ak euh, ensemble mairie bi moo di may euh, dafa am ñoo xam te ni dañoo ñëw jàpp place te waru ñoo dugg ndax mu fekk benn kant mu xëy benn tailleur moo fa nekkoon léegi euh, mu am ñetti apprenti apprenti yooyu ku ne ba nga xëyee da nga ñëw jàpp sa kant nga dugg donc day daal di ëpp yemul ci loolu am na ñoo xam dañoo léewu nit ci biir cantine bi biir marché bi léegi xam ne cantine da rafet na neex naa liggéey nga bëgg a nangu sa cantine bi nga woon sa client boobu bon ñun léegi kooku naka lañ koy def bon loolu lépp moo indi département bi nga xam ne moo am te dañoo bañoon ne wax dañoo wax ko te ñu koy xëccoo ah man affaire a jaaxal waaw. mais côté insécurité teg ci kaw canal bi ak nawet bi ak lépp waaw kaw kaw côté sécurité man du ma technicien ma yaakaar naa DSCOS ak ASEROUTE ak assainissement ñoom kenn ku ñëw xool nga ba xam ne lii mën naa nekk ñu koy doog a autorisé hmm, pas man. du ma du ma technicien mais ñi nga xam ñoom la yàlla dénk moom la yoon dénk boobu ñu war ko ñu war ko gëstu xool nañ ko ba ne mën naa nekk provisoirement parce que duñ fi nekk pour continuer dañ fa war nekk pour diir ñu liggéey marché bi maximum douze mois du ko passé. marché bi yëpp la la concerné mais xam nga marché bi mënoo yëkkat ñëpp parce que amuloo fële yóbbu foo mu leer mais parti partie partie bi nga xam ne moo jëkk a yàqu nag moom lañ jëkk a yëkkati boo xoolee. Euh, partie bi la ñu clôturer parce que moo jëkk a yàqu mais bu ñu ko laalee ba ca defar ba pare dañu yëkkati partie B wala ñu yëkkati partie A ba étape par étape parce que amuñu fu ñu bu mbooloo mi parce que mënul ñàkk parce que xam nga marché nu mel faaw ñu defaraat ko. waaw xanaa di sant yàlla rek euh, ndax loolu euh, ñaari na ne ginnaaw ay jàmm. am na ñu naan xëccoo di ŋaayoo di wax ne duñu dem ci pome bi bëgguñu ñu bi marché bi nangam nangam nangam nangam mais tey masala ñoom ñëpp tey nangu nañu xam ni li leen defal moo gën ci ñoom ba tax na nga ñëw kenn ko jël nga sa place euh, rawat nañu moom place yi ak locataire ñoom ku ne rakaas nañ la ba nga nekk ci sa place yaa ngi liggéey macha allah loo xam moo dàq la nga doon liggéey li ma wax boo dugg ci biir marché boo laaj daay am ñu la ko ñu la ko ci wax kon nga xam ne ni euh, Sénégal noonu rek lay doxee maanaam euh, wala ñaay nee na boo demee ci temb nag ñooy xul ñooy xuloo moo ñu amul baag waaw man daal ñi nga xam moom moom kant ñi nga xam ne fal ma nekk leen fii fexe naa ba kenn ku nekk da nga jëlaat sa kant ci kàttanu yàlla te doo fay dërëm ñi nga xam te dañoo nekkoon locataire amuñu amuñu place dégg nga xëy dañoo luyee ñoom dem fexe naa ba ñoom tam diir bi nekk fii lu may entretien place bi ak canal bi duñ ko fa fay maire bi teggil na leen location kii mu ko waxee ah, taxe municipale bi ah, locataires yi la woon ci biir marché bi nga xam fay bu njëkk borom cantine yi location yooyu tegg nañ leen ko duñ fa fay dara lu may entretien du passé dix mille francs maximum par mois waaw. voilà waaw merci kontaan nañu baax a baax yéen a yéen am ngeen jaaraama jërë ngeen jëf parce que yéen a ngi leer lépp macha allah parce que nii la parce que tëdd sa biir néeg di seetaan xam li xaw ci dëkk bi dafa am solo te yéen a ngi koy def macha allah jërë ngeen jëf kontaan nañu baax a baax.